Euh, euh, je m'appelle Zeyna Balago suis la présidente euh, du mouvement famille Balago famille autant pour moi Je suis ànd sama adjointe Abi Balago Le mouvement bi mu ngi hommage à Papa John. Inshallah le 14 septembre ici à Hambourg parce que le mouvement a été créé pour l'amour qu'on a pour Pape et euh, ak toute la famille mais pour Pape nous avons créé mouvement Balago Family c'est une grande première parce que sommes def dara ci mouvement mouvement bu baisse la mu ngi doon ko bon voilà Pape Thion nous bu mu doon dund ñu ngi ci wax et tout mais jotuñu def belle activité. les nag nous profiter ci occasion vu que génn na àdduna ñu profiter ci occasion bi euh, rendre hommage à la 14 septembre. nous ko bëgg defaree ay ñaan vu que ku génn àdduna loolu dañ ko mënal man moom de mon côté loolu rek laa mënal Pape Thion dañ ko bëgg ay rendre hommage toute une journée wàcce kaamil

Nous ngi ñaan daal ñëpp daal ñoo fekk suñu suñu mouvement bi le 14 septembre incha